ñu bëggoon a def benn waxtaan ci kenn ci njabootuk sëriñ Touba Xaadim Rasul di sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke di ilimaanu ilimaan yi Pape Sow ginnaaw bu ñu doon yow ñoo ngi lay jaare waa sunu TV 221. auzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah tawakkaltu ala allah alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyidina mawlana muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man wala asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa internet sunu TV 221 mboolem kuy seetaan rek ñu ngi lay nuyu di la jox sa way di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lol te and ak wer ni ko it la ñaanale ñaanalee Cheikh Jëmb Fall di la nuyu yow mam Thierno yow mi ñuy dalal bismillah ñu tambalé sun waxtan ci sun yaakar di serigne Touba serigne Abdou Khadr ñi nga xamanteni bokku na ci imam bi nga xamanteni ñepp nangul nañ ko ni moy imam imam yi serigne Abdou Khadr gane won aduna ñetti fan ci weeru tam xarit ñu koy màggal ci dimaas gi ñuy jëm ci këram ku tedd ga di tuubaax euh, taxawaayu sëriñ Abdou Khadre ñu am kàddu goo xamante ni yëgoon nañ ko ci suñu yaakaar di sëriñ Touba Khadim Rasoul ci ganek àddunaam euh, ban ngëneel nga ñu wax nga ñu mën a wax ci jaar ci kanamu sëriñ Abdou Khadre waaw kon sëñ maam Thierno ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci laaj yu am solo boobu kon sëñ Abdou Khadre buñ ko doon xamle dañuy wax nii moom euh, ci doomi sëñ yi nga xamante ni bi liggéey bi sottee lañ gane àdduna ci ñooñ la bokk maanaam ñi nga xamante ni sëñ bi dem na fi géej gi ba siwaat ba dem Mauritanie dellusiwaat ba dem Thièyène Jolof ba dellusiwaat ci ñooñ la bokk euh, ñoom ñooy abdu abdu yooyu ba wàcc ba ci suuf ñoom sëñ Saliou ak ñooñ kon moom ci ñooñ la bokk loolu daanaka liggéey bu nangu sëñ Touba la ñoom ñoom daanaka liggéey bu nangu sëñ Touba la mu gane àdduna yit ci ndaam ndaam di dëkk bu barkeel di dëkku sëñ ndaam Abdourahmane Lo di góor yàlla di nitu yàlla di dëkkub daara it muy ndaam mu ganee fa àdduna wax nañ ñiit bi mu ganee àdduna bi ñu ko yëgalee sëñ bi sëñ bi daa wax maam Thierno demal joxe ko ab tur waaye daal di maam Thierno ba yeexalal jéego yi euh, te nga guddal ko ndax li fekk ngay dem ba yegg ci moom gis ko képp koo fi dajal mbaa nga teg jéego mu tegaat jéego mbaa sax mu gis la rek suñ borom aramal na yaramam safara kon lolo waraloon mam jarno wax nañ ni sax day jaar benn bedd ba ci ak mu genn jaar ba ca des manam bi yeexal jeego yi ngir lolo. wax nañ ni bim gané aduna wax nañ ni serigne bi ci bopam da wax ni bim gané aduna ak mok mok Abdul Qadir jeylani ño ño tolo màqaama ci suñ borom te Abdul Qadir jeylani bok na ci juróomi goor yalla yi nga xamni ko xam sen tour rek do lak ci safara da mom wax nañ ni bim gané aduna rek lool loolu la yor kon euh, buñ ko don xamlé dal ni ci ñooñ la bokk mu gane àdduna ci ñetti fan ci tamxarit ci atum 1914 ci Ndaam. Euh, liggéey bi nga xamante ni doon la ko liggéeyal waajuram wu tedd wa ci yoonu Mouride di yoonu Serigne Touba Khadim Rasoul ñu am seede soo xamante ni jëlee woon nañ ko ci jëmm ju tedd di maam Abdou ñi jugoon na ci ay jamono dem jaare ju ko waxtu julli jot mënu ko jiite ma. ñu maam Abdou ci sàkku mu ne ku jiite yaramam xaraamal na safara nanu teewloo kàddu waaw sëñ Abdou Khadir dana wax ne sëriñ bi ci boppam sax moo wax ne Abdou Khadir mii ku mu jiite rek moo xam nit ku wàcc liggéey la mbaa kuy dund waaye ku taxaw ci ginnaaw mu jiitu la sa yaram araam na safara loolu moo waral sax ñu naan ko imaamu imaam bi xam ne yoonu murit li muy yaatu yaatu yaatu looloo waraloon sax sëñ Fallu bi mu toogee ba jëmmi jamono nekk ci xilaafa gi mu yabal ko ne ko del jiite ji ci jumaay Tuubaa nga xam ni laataa loolu boobu daraan def rek day assisté ci julli mbooloo nga xam ni wax nañ ni bi mu amee ñaar fukki ak benn lay assisté julli mbooloo ba mu bi muy wàcc liggéey wax nañ ni benn yoon lañ fàttaliku bi mu yi mu ab absenté ci comme julli mbooloo wala ajuma yi yi mu ci ab sante mooy bi mu demee aji màkka waaye jamono boobu moom daraan def day julli mbooloo day dem ci ajuma yeeg yooyu yëpp waaye daal euh, xam gi mu xamoon boppam xam ni moom ku jullee ci ginnaawam sa yaram araamal safara moo waraloon mu bari woon ay jullit mbooloom ak ay jiite ak tamit néew bu am rek mu lay jullee loolu it moo waraloon suñ Abdul Aziz Dabaax mu baax mi doon barkeeloo ci moom loolu waaye ku ne xam na ni moom ci boppam rek góor yàlla la waaye loolu day fësal nitu yàlla yi cër wi ñuy joxante seen biir saa su nekk ak nangu gi gi nangu gi wane ni moom nangul na ko loolu nga xam ni suñ borom moo ko séddee loolu rek xam ni loolu cëram la daal ñu xool ci bi mu nekkee ci xilaaf ak Serigne Touba ñenn ñi waroon nañu sax ci ay kàddu ndax ñenn ñi ñoo ngi jàpp ne juróom-ñeenti weer la ñenn ñi jàpp ni fukk ak benn la yow lan ngañ ciy indil comme tegtal. waaw bu dee ñun nag ci suñuy gëstu yi gën a am ndax euh, boo xalaatee dañoo wax ni sëñ Abdou axat mu ngi wàcc liggéey ci euh, weeru juin 1989 moom boobu wax nañ ni ci la yegsi ci xilaafa gi te mu ngi moom mu ngi wàcc liggéey le 18 mai 1000. 990 moom sëñ Abdou Khadre daanaka boo jëlee juin 89 ba mai 90 da lay jox 11 mois waaye nag danoo wax ni histoire boo gis ci àdduna ci werante la la baaxoo wax nañ ni euh, ba àdduna taxawee ba léegi lenn rek lañ werantewul mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdoulaye mooy baayam Amina mooy yaayam waaye lu dul loolu am nag werante lu dul loolu am nag werante waaye daal ñun li ñu gën a jàpp te jàpp ni mooy li gën a wér mooy fukk ak benn ci ay weer la def ci xilaafa bi ci fukki feer rek benn yooyu lan nga ñu mën a jox ci tegtal yoo xamante ni liggéey na ko ci xilaafa gu waa juróom wu tedd yi di Serigne Touba Khadim Rasoul. waaw sëñ Abdou Khadir moom ku ne xam na ni bi mu ñëwee daa fekk fii sëñ Abdou Lahat bàyyee liggéey bi nga xam ni booba yu bëree bëri sëñ Abdou def na ko ci euh, dëkku Touba bi waxuma sax ci jumaa ji waaye forage yi mu taxawalaat ak yooyu yëpp. Euh, sëñ Abdou sëñ Abdou Lahat ci lool la gënoon focaliser moom nag bi mu ñëwee daanaka daa gën dooleel diine ndax sëñ Tuubaa daa ñaan wala tus bitan fiixi jamaatan tuqiim asalawaatu xamsa daaban yaa xakim ñaan mbooloo moo xamante ni dañ fiy saxal ay julli moom bi mu ñëwee ci lool rek la nekkoon ndax daa moom wax nañ ni sax lépp loo xamante ni charia waxu ci dara moom loolu neew ci woon moom daanaka daa tënkoon ay mbiram ci charia doonoon it koo xamante ni day mel ni ku dellu siwaatoon sëñ Touba am sëñ sëñ Touba bu dellu siwaat la woon ci jaamu yàlla sëñ Touba julli da koo jaraloon dem bay julli ci ndox mi sëñ Abdou Khadir mi wax nañ ni xuus na ci am taw ngir julli ji biñ ko laajee mu daal ne xuus ci taw bi dem julli ji moo tane xuus ci safara moom da doon feeñalaat sëñ Tuubaa nekk gi mu nekk ci na ndax yoonu murit daa dem ba nit ñi boo waxee sax dañuy jàpp nit ñii dañoo génnee seen bopp ci diine moom sëñ Abdou Khadre daa bokk ci ñu fasaral loolu ba noppi teewee ci jëmm sëñ Touba ci yu bëree bëree bëri at yi mu dund sax moom la sëñ Touba dund mooy 75 ans at yooyu la dund ba ci poids sax wax nañ ni moom sëñ Touba ñoo noolo ñoo tolloo poids ba ci waaxu bi sëñ Touba daan waaxu moom wax nañ ni noonu la daan waaxoo moom sëñ Abdou Khadre daanaka bu la rawee rek daanaka romb na la tey wax nañ ni ba ci bu jullee ba noppi ni muy wëlbatikoo nga xam ne du geesu wax nañ ni sëñ Touba noonu la meloon bat bi ni muy rire buy tal alxuraan wax nañ ni seigne Touba non la meloon beri na yo xamanteni mok seigne Touba ñoko ko nuurale moom sëñ Abdou Khadir maanaam daa ñëwoon ngir feñalat seigne Touba ci bopam seigne Touba proprement dit lool la ngir feñalat ko lool la def ci am gi gatt gi nga xamanteni amna am no solo ba ci seigne Touba ñum gatte won ay wax sax mom non la gatte won ay wax mom. Mhm. ñu dem ba xamal ñu ni ñu say say don na ko jiimal ba ko duggal ko ci tel noko jangate waaw loolu day wane natt yi nga xamante ni maanaam góor yàlla bu fi ñëw rek da ngay am natt boobu ndax danoo wax ni góor yàlla même bu juddoowee ak wilaaya maanaam day rampe ci ay maqaama yoo xamante ni wala ay nattu yoo xam ne ay ti jaar nañ ci te ku ne xam ne ni ci taarixul islaam Seydina Yuusufa dugal nañ ko ci bënnub teen kon day mel ni kuy doxee xam nga bi muy gane àdduna sëñ bi daa waxoon ni mu ngi tolloog maqaama Abdul Xaadir Jeylaani bokk ci góor yàlla waaye bokkul ci yeneen yi góor yàlla ñu dugal ko ci bënnub teen mu mel ni kuy toll ci màqaama waxuma ne ab yonent la waaye ay màqaamaat mu mel ni kon fii yuusufa tolloon bañ dugal ko ci teen bi foofu la toll kon ci jàngat nii rek ci booy wax ak koo xamante ne xam na tasawuf wala mu xam dara ci ay màqaamaat da ngay xam ni loolu mënul woon ñàkk ci ak dundam maanaam ay nattu yoo xamante ni day nuru nattu yonent loolu mënta ñàkk ci ab dundam moom waaye ñu dégg ci lu yéeme ndax kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci saay-saay boobu defal gaaw bala ñu lay gis wala ñu la fay fekk di la lor ndax ku ñuy lor dana digal kakayu lor ci oyof naan ko defal lu gaaw ndax yërmande waaw loolu day dellu si waat ci li ma waxoon sànq ci sëñ Touba sëñ tubaa ci boppam wax nañ ni naaj yi biñ ko fayee juróom fukki junni euh, ngurdu wala diinaar ngir mu rey sëñ Touba moom ci boppam bi mu ñëwee ci kër gi daal ne day day day jébbalu ci sëñ Touba sëñ Touba ci boppam da koo digaloon muy muy jàng yaasin suuratu yaasin ngir xam ni maanaam yaasin mën na koo musal saar woowu waaye sëñ Tuubaa xam na lim fiy wut si wax nañ ni naaj yi daa bàyyi ba sëñ Tuubaa nekk ci ak benn kees ba wéet ci fekk boobu moom miin na kër gi mu summeeku comme ni ko waajuram juree woon daal di yor jaas yi di koy tiimale sëñ bi waaye wax nañ ni bi mu tiimalee sëñ bi cër yi mënatul dara bi mu paree nag ba mag ñi fekk ko fa nar kaw dóor sëñ bi dani leen kii baal leen ko ana nu ngeen di def koo xamante ni day tooñ ba noppi ngeen koy fayul baal leen ko bu ngeen ko jéggalee suñu borom jéggal leen wax nañ ni sax sëñ bi dañu ko teggeel ne après daal di dem jël train wax nañ ni sax ci ginnaaw bi am na mag ñoo xam ne dund nañ ba dajeek moom ba nit ñi dañ koy dóor waaye bi ñu la leen sëñ bi waxoon rek dañuy dellu siwaat kon loolu sëñ Abdou Khadir sa boobu it dañuy jàpp ni noonu rek la ci doxee ñoom dañoo doon sëñ tubaa xarfan bi xarfin maanaam loolu leen mënti def ci àdduna duñ ko jàpp ndax sëñ Touba daa waxoon ni buñ la tooñee nga muñ ngir yàlla mbaa nga jéggale ngir yàlla suñ borom dalay fay ba noppi fayul la te it nekkul nit bu la defee ab safaan rek da nga ko war a fay safaan kon doon bi mu doon suñ Tuubaa mooy feeñ foofu rek. Mhm. Euh, suñ pap bëgg ñu woon waxtu yi xaw a kii. Mhm. waaye dañuy liggéey ci wàllu xarale. Mhm. yi nga xamante ni. ci waxtu liggéey ci waxtu. waaye wax dëgg yàlla jëmm ju tey ni suñ Abdou Khadre waxtaan ci moom. dafay da dul doy sax waaye waxtu wi moo ñu xaw a dab ñu di ko jéggulu waaye dinañ ko àndaat ci yeneen i plateau dinañ ko àndaat ci yeneen i jamono ndax waxtaanu seen Abdou Khadre xajul ci ay waxtu incha xajul sax ci ay fan waxuma la ak ay at waxuma la ak ay weer incha allah euh, yal nañu yàlla may ñu fekkee ak tal euh, waa suñu TV ñoo ngi ànd ak yow di la sant di la gërëm ci nangul gi nga xamante ni nangul nga ñu ko ci jëmm ji ñuy jëm ci bisam di dimanche ñu ko yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm euh, lépp luñ fa sàkku ci yàlla nañu dolli ngeeneelu seigne abdou khadir amin yi yal nañ ko yalla boole defal defal ko bokku julli yi nga xamante ñoo ngi ak sunu tv 221 euh, lan ngay yëkëté jotaay bi wa kon xana di leen sant bu baax di wat ki leen ñaanal seen di ngeen dem ba euh, mu wër aduna bi kap ba li ngeen ci bëgg mu kawé seen jortu lool ñu leen koy ñaanal bu baax baax euh seigne abdou khadir li ci ciy moy magalam gi rek ni seigne touba waxoon ne nañ ko magal ci sunna donte jamono dem na ba tollu fi sax nañ ko magal ci sunna te jang alcorane ak qasida da daal di ko koy maanaam jébbal defal ko ko àddiyee te xam ni lim ñu defal ñun mënuñu koo fay ñu màggalee noonu bis bi waajal ko bu baax te bisam bi daa bokk ci bis yu ñu wormaal maanaam ñu kii ci bu baax a baax a baax farlu ci koor yi farlu ci jaamu yàlla bu baax a baax loolu daal mooy li nga xamante ni doon nañ ko dénk suñu bokk taalibe yi di ko dénk suñu bopp te di ko tëjee te di leen sant bu baax a baax a baax di wax ni wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah